asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginaar bañ leen nuyoo di am contentement jano ak yéen sax suba ngi indi leen di gën a ci xibaaru làmb Mbaye Babacar soo fayee rek ma jàll ci asal daal di ñëw ak ñoom ci defi bi. Ndeye Mbacke fay naa la nuyu bu baax a baax mbokk internet yëpp ñuy topp ci Leewtoo TV rawatina waa Diourbel sama dëkk maa ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm ak salaam. Assane Waalo. Ndeye Mbacke fay naa la amaat mbégte jàkkaarloog internet Leewtoo TV pour indi leen li gën a fës ci mardi 23 février 2021 journal suñu lam xëy ci xëtam mu njëkk contre Lac de Guiers 2 et Balla Gaye seen Eumeu Sène et Bombardier visent le dóor-dóoraat mu mel ni ñaari mbër yooyu dañoo nar a doolu cere yokku ñeex. Euh, Ndeye Mbacke noonu nga ko waxee noonu la ñu ko waxee ci biir journal bi diggante euh, Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ne bii moom mooy Lac de Guiers ñoom ñaar ñi ñuy war a dajal li ñu bëgg mooy delloo battu ca ndaala. wala delloo buum ca boy boy ga ba mu tax ripp ak xaaxam Bombardier li mu bëgg mooy daanaat Balla Gaye 2 wante Eumeu seen liy bëgg-bëggam tamit mooy daanawaat la de Guiers wante loolu est-ce que dina yomb laaj la ba nga xamante ne bii mi ngi suñu kanam. dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la Eumeu Sène euh, contre Lac 2 et Balla Gaye Eumeu Sène et Bombardier rise le dóor dooraat maanaam ñaar ñi daal ñoom ñoo bokk objectif Eumeu Sène daane woon na Lac de Guiers euh, le 8 avril 2012 euh, Bombardier également daane woon na Balla Gaye le 8 juin 2014 ñoom ñaar ñëpp seen objectif mooy yu dóor dooraat te ka njëm nag mooy Siteu ak Papa Sow défaite lors de leur dernier combat Papa Sow et Siteu en zone de turbulence mu mel ni ñoom ñaar ñu ngi ci ay jafe-jafe yu metti muy Papa Sow ak Siteu ndax li waral loolu seen combat yi ñu jógee ci ay défaite la ñu jóge moo mel ni kon combat bii nii combat bu metti la ñu nar a gis ci diggante Siteu ak Papa Sow kenn waru coo def erreur Assane dëgg la Mbaye Babacar combat boobu Babou du Fall moo ko tëgg suñu laam nag ñëwaat ci ñoom nee na ñoom ñaar ñëpp seen dernier combat dañ ci jëlee woon defet euh, Siteu guy gi moo ko daanoon Papa Sow Euh, moom ñaari defar la jógee contre euh, Lac de Guiers ak Ama Baldé ñaar ñëpp dañ koo daanal loolu tax suñu journal suñu làmb de ñoom ñaar ñi daal ñu ci dans une zone euh, de turbulence. Abibou Diallo le nouveau président du CLG de Thiès et ses maintenir la cap et continuer le travail déjà bien fait. moom mi ne moom mooy président CRG bu Thiès di wuyoo ci turu bu jàll moom li mu bëgg mooy téye li nga xamante ne bii moom moo fi nekkoon ba pare wéyal liggéey bi fi ki fi nekkoon euh, bàyyi ba pare nag owaat ñëpp ñu bokk ci làmb tàllalaat leen loxo ngir ñu jëmale làmb cees kaay ca dëgg la Baye Babacar mu Diallo moom moo nekk nouveau président bu CRG de Thiès moom nag nee na objectif bu mu am mooy que ne li fi Maysa Ndiaye te tegoon mu continuer travail boobu waaye nag mu ngi woo ñi mu jiite jiite ñu liggéey ci unité liggéey ci eh, respect waaye également ñu respecté test texte yi nee na lii bu ñu ko defee rek coow du am ci CRG bi. ba léegi rencontre avec les la le CNG aborde les modalités de la pratique des reprises. mu mel ni euh, moom mi jiite président moom mi jiite CNG di Bira Sène Euh, ñëwaat na ci modalité yi nga xamante ne bii ci la ñu war a amalee li euh, saison bi ñu war a dooraat bu ci yàlla àndee le premier mars euh, yaatal na ci def na ci ay éclaircissement bu baax a baax Assane. dëgg la Mbaye Babacar CNG dafa nekkoon réunion démb ci lundi bi après réunion bi nag Adama Bopp nekk seen porte parole moom moo wax ak journaliste yi li mu wax mooy que ne seen réunion bi li ko waraloon mooy CNG bi dafa dafa réunion pour que wax aborder les questions des modalités pratiques yoo xam ne ni dina permettre saison bi waxtaan nañ ci huis clos bi waxtaan nañ ci mesure ba respecté ko mm-hmm. pour que saison mën a démarrer le premier mars. ba léegi renouvellement du CRG de lutte Thiès et Kaolack sont en règle. mu mel ni ñaari dëkk yooyu kese ñoom ñoo yeesalaat seen ay CRG muy Thiès di diwaanu Thiès ak diwaanu Kaolack mais yeneen régions yi yëpp ñu ngi toog di taaxirulu ba léegi bu ñu ñan ñooy seen président CRG Assane. dëgg la Baye renouvellement des CRG de lutte seul Thiès et Kaolack sont en règle noonu la ko journal suñu waxee làmb waxee nee na euh, renouvellement CRG yi Thiès ak Kaolack rek ñoo ci nekk en règle ndax ñoom ñaar rek ñoom ñoom ci jot fal seen président Thiès fal na Abibou Diallo Kaolack moom Maam Koor Faye la teg ci boppu euh, CRG bi kon des na euh, douze régions yoo xam ne ni ñoom ñëpp kenn amu ko ci président instant bi. kon mu mel ni jot na fi mu toll nii tiim jot na fi mu toll nii tamit yeneen régions yi xam ñan ñoo leen di jiitee ci wàllu làmb. waaw puisque saison bi la premier mars lay démarrer jot na ñu am njiit pour que ñu mën a teg seen texte xool na la ñuy def ba seen saison deux mille vingt deux mille vingt et un dox normalement. kon loolu dañ koy bàyyi ci loxo ñi nga xamante ne bii ñooy inspecteurs yi nekk ci diwaan ba léegi journal suñu làmb ci ñaari espoir la xëyee Diène Kairé prend au sérieux Modou Anta. Diène Kairé moom mi lee nga xamante ne bii combat bu rëy la am na ndax ku xam Modou Anta xam ne ndaanaanul làmb la. ndax fa muy bàyyeekoo dëkku làmbale muy ceeskaay benn dëkk ñaaru gaar euh, Diène Kairé li mu xamle mooy nee na combat bi bàyyiwu ci benn détail lépp lu ci war a def dina ko ci def ndax ndam rek la ci bëgg. dëgg la Mbaye Babacar noonu nga ko waxee noonu la Diène Kairé prend au sérieux Modou Anta Diène Baye Kairé dernier combat bi dafa defoon benn match nul moom ak Queens dem arène nationale ñu def euh, combat bu yàgg. ñu mujj match bi euh, amateur yëpp di ko sànni xeer. loolu nag moo la bañ dalaa ko ci contre booy booy booy an boodu anta looloo tax journal bi euh, nee jën Diène Kaïré ngi ci entraîné mi ngi préparé sérieusement te jël na ko sérieux adversaire am bi di Modou Anta. ba léegi ah journal suñu làmb Balla Gaye 2 Bombardier en mois de juin. Balla Gaye 2 ak Bombardier ñëpp xam na ne euh, suñu papa Gaston Mbengue nee na bu koor gi jeexee. bëgg na ko bëgg na koo bëgg na koo tëgg ñoom ñaar ñooñu ñu daal di bëre ku ci nekk xam fa ngay euh, euh, fa ngay fa ngay jaar ak sa morom ku ci nekk xam fa ngay mujjee ak sa morom kii day daan ñaari yoon wala kee day fayu 2-0 lay doon wala 1 dëgg la Mbaye Babacar Gaston Mbengue moo tëgg combat boobu ginnaaw bi mu kale combat Eumeu Sène ak Lac de Guiers le avril. jël na combat Bombardier ak euh, Balla Gaye également prévoir ko au mois de juin nee daal bu koor gi jàllee rek na bëgg def euh, combat boobu te bëgg na également euh, combat boobu jàllee mois de juillet avant saison bi tëgg mu def mu créé waat beneen grand combat Gaston nag prévoir na loolu waaye nag mu ngi tëgg benn revanche boo xam ne nii mu ngi dox ci ñaari mbër yi ndax ni ko waxee Mbaye Babacar. Mhm. Bombardier dafa daane woon Balla Gaye jël couronne bi ci moom. Mhm. loolu nag ko bëgg na ko fayu. moo tax combat bi daal euh, juin mois de juin war na trop. confirmation lay nekk. wala revanche lay nekk. loolu mu ngi suñu kanam yu yoon yàgg. dañuy dem ci li nga xam ne mooy journal record lutte olympique et africain coaching des lions Amboura Sarr Evelyne Diatta en sursis. Euh, li nga xamante ne bii moom mooy lutte olympique ak lutte africain di xeetu bëre ba nga xamante ne bii xeetu bëre bu ñi gën a xereñ ñoom ñoo koy def euh, ñaar ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy entraîneurs yi muy Ambroise Sarr ak Evelyne Diatta ñoom ba léegi serge bi waxagul dara ci ñoom ñoom ñu ngi toog rek di taaxeram dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la Ambroise Sarr Evelyne Diatta en sursis noonu la ko journal euh, record waxee Ambroise Sarr moom mooy coach équipe nationale bu lutte simple Evelyne Diatta moom mooy coach équipe nationale élite olympique ñoom nag ba instant bi kenn waxu leen dara kenn xamul ndax dañ leen di reconduire ñu nekk seen poste yi wala dara moo tax journal Record ne ñoom ñaar ñii daal ñu ngi am source mu mel ni kenn ci ñoom ñaar ñooñu xamul fooy féetee. di la jaajëfal bu baax Assane Waalo Mbaye Babacar looy tàggatoo xanaa jaajëfal ñëpp bu baax a baax fàttali population bi rek ñuy takk masque yi bu baax a baax di respecter distance yi di raxas loxo yi ba mu set wante tamit bu ñu amee gel ñuy nettoyer loxo yi am na ci solo wante tamit bàyyi xel ci vaccin bi nga xamante ne bii moo fi nekk ñëpp fexe pikiiru ndax. mbas mi jóge fi ngir ñépp mën a delluwaat seen activité rawatina suñu activité bi nga xamante ne bii ñoo ko moomal suñu bopp mooy suñu cosaan di làmb nga xam ne jéggaane wuñu ko fenn ñu ngi jaajëfal ñépp di dig ñépp allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm. Assane Waalo. Euh, Ndeye Mbacke di lay remercier di remercier Babacar euh, wax am na solo. waaye nag na fas yéene ñëpp rek <laughs> comme d'habitude di remercier waa Linguère di remercier Yacine Fall suñu caméraman bi. di leen jox dig jaajëfalaat bu baax ah internet Leewtoo TV ñu ñuy subi ci nga xam ne mooy seen revue de l'arène ci loolu la ñuy jaaree nag di souhaiter un happy birthday à Rose ah, yaayu Mansour borom mañ purom suñu cameraman bu ñaar boobu la kontaanee bu baax leen jox dig daje ëllëg ci Leewtoo TV incha allah. mañ pro. mañ pro Mansour borom caméra yu baax yi loo filmé wul baaxul. lu ma filmé wul baaxul le benjamin des caméramans. kan ngay coupé.